je venais juste sur le plan institutionnel tout à mooy question bi nga soulever sànq da ne président de la de la république moo am doole tey essayé nañ ko ak ak Wade essayé nañ ko ak Macky nga ne su yéegee moom mooy def réforme yu ko neex mooy yokk réforme yu ko neex assemblée nationale partem su fa amee majorité mooy jàllal loi bu ko neex donc non seulement il est seul à maitriser le pouvoir exécutif waaye su amee majorité assemblée nationale moo fay jàllal loi bu ko neex loolu dafa nekk euh, li ñu woowee hyper présidentialisme mooy loolu mooy tax tey sop coppite yu bëri dañ ko dañ ko dañ ko dañ koy bëgg indi président bu ñuy am su yéegee du doxalee loolu day doxalee di jëmee booram ak booru loolu moo ñu dal ak Abdoulaye loolu moo ñu dal ak ak ak ak ma la doon tontu ne ci crise yooyu ñu mës a am Sénégal crise yu ñu mës a am Sénégal mu ngi wéeru ci ni président moom moo yore nguur gi di def lu ko neex moo tax ma ne la loolu dafa bokk ci li nga xam ne dañ ko war a soppi xam nga ñun Sénégal suñu problème ak la plupart des pays africains suñuy wax système institutionnel suñuy wax constitution suñuy wax nu ñuy tabaxee dëkk état ñun africain indiw ñi benn xalaat bu jógee ci ñun lépp luñ koy waxee moo yi ak système yi dañuy dem jël li tubaab yi wax ñu ñëw seet fan lañ koy dugal hyper présidentialisme parlementarisme yooyu yëpp y a pas une idée constitutionnelle africaine te ñun nee naa la dañu ute ak tubaab bi dañu am une histoire politique différente am une sensibilité différente moo tax suñuy indi solution sur nos problèmes dañu war a xool ñun lan moo méngoo ak suñu aada balaa ñu koy proposer moo tax ma ne la mbir mi tey du rek jël Macky wàccee ko jël Mamadou Lamine Diallo teg wala nga jël Macky Sall wàccee ko jël Ousmane Sonko teg man gëm naa ni tey avec le même système muy Khalifa Sall muy Ousmane Sonko koo fi mënti teg c'est à peu exactement la même chose noonu lay doxee peut-être yéene yi mën na ute tuuti rek mais c'est exactement la même chose moo tax crise yi ñu dund dafa ñu war a may ñun ñu xool ñu def bilan ne mais Sénégal chaque fois su fi nit ñi deewee en par dizaine par vingtaine fu muy jógee ci politique du jóge ci xeexu ethnie du jóge ci xeexu diine du jóge ci xeexu koj du jóge ci fen politique. sport bi parfois ñu gis ci ay mbir de temps en temps te yooyu sax par accident la maanaam vraiment c'est vraiment accidentel léeg-léeg ci stade mais c'est vraiment négligeable mais li nga xam ni moo yëngal dëkk bi parce que lu weesu sax mbir bi rek du rek nit ñi dee mais tey nii. instabilité bi nga xam ni mën na indi Sénégal ak bi mu amee avant ak avant du temps Ablaye Wade ak yàquturu Sénégal loolu saa yu amee ci politique la jóge kon yéen politiciens yi yéen a ñu tere dund dund bu neex. man de. Hmm? yéen politiciens yi fexe ba créé fi deux cent et quelques partis yaa ngi wax sànq Angleterre alors que <coughs> Angleterre ni mu ngande royaume la. oui United Kingdom. oui la yor. terewul ñaari parti moo fa am. le parti conservateur wala le Labour Party. waaw mais loolu pour man part États-Unis dooleem ji ngay dégg yëpp. soit tu es républicain. Mhm. soit tu es démocrate. am na ay tii parti et cetera yu ndaw ndawaan. Mhm. mais ba tey da ngay féete ci boor bi wala boor bi mais Sénégal. bu dee démocratie mooy ku judd ku yeewu suba teel mu neex la rek. non non xam nga ñooñu régime bu daanu fractionné wu créé ñu ay vingt vingt cinq parti ba nga am ci yow ba naan non mais. écoutez non mais loolu laa wax nii ba tey politiciens yi. non biram seen zéro virgule zéro pour cent yi ngeen doon ci réew mi yéen a tere. quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi ñu am. waaw Birame da nga may may ma expliquer rek gis nga li ngay expliquer nii gis nga États-Unis ñoo ëpp parti Sénégal. oui mais parce que yow waaw parce que da ngay dégg rek parti républicain ak démocrate parce ñooy parti yu gën a mag yi. ba tey ñoom ñoo mës yor. waaw déggoo li ma la ñoom mës a fii falu. fii la génn wala fee la génn. wax nii yëpp kon nekkul nombre parti bi ngay am mooy tax dëkk bi am instabilité wala stabilité parce que nee naa la états moo ëpp parti Sénégal. kon ana yeneen parti moo tax xam nga fii. gis nga fii soo fi amee instabilité parti yu mag yi ñoo ko fi indi. fii mu soo dégg Sénégal et c'est parfaitement logique parti bu ndaw moomu mënul yëngal dëkk fii li fa indi instabilité mooy parti yu mag yi mooy parti yu mag yi parti yu mag yi xeex daf leen daf leen koy jaral te loolu laa la bëgg expliquer sànq si je vous donne rek cinq minutes nee naa la fii on est dans une démocratie d'opposition démocratie d'opposition. mooy benn parti mooy gagné yeneen parti yëpp perte benn candidat mooy gagné yeneen candidat yëpp perte benn parti parti ci société bi ci peuple bi mooy gagné ñeneen ñëpp perte gis nga loolu. <laughs> ñeneen ñi kay duñu perte non dañuy perte gis nañ fi transhumance yi. parti bu yéeg ña doon. non ñooñu duñu peuple transhumance yi duñu peuple. <laughs> non transhumance yi duñu parti yëpp perte non non non. non xoolal soo ah, amee. soo amee bokk yaakaar ñaata parti la. soo amee soo ah. demee élection. non Guèye man li ngay wax moom vraiment xanaa soo demee hmm. cinquante 52 pour cent voté pour benn candidat 48 pour cent voté pour beneen candidat candidat boobu ak 52 pour cent ñoo gagné ñeneen ñi perte nañu dama lay expliquer gis nga loolu dañu war a bàyyi c'est-à-dire tànneef Sénégal waratul nekk mbiru kii gañe na ñëpp perte parce que loolu mooy tax nit ñi daf leen koy jaral ñu xeex def ci seen seen seen seen moyen yëpp. loolu laa lay expliquer ne la crise yi ñuy dund daf ñu war a yóbbu ci beneen système nee naa la tey soo jàppoon ni ma jël ko ci média su nekkoon dañu ne chaque cinq dañuy tànn benn média moom rek mooy mooy mooy doxal Sénégal kon di nga gis ñu média yëpp dañuy nekk noonu parce que kenn ki su gañee ñëpp perte système boobu mooy système bi nga xam ni kenn su gañee ñëpp perte il faut quitter ce système il faut tey ñun lu ñuy proposer ñu ne. tey su nekkoon les quatre cinq premiers ñoom ñooy yéeg pour téye exécutif bi mu am benn président de la république mu am ñeneen yi ku nekk am un certain nombre pàcc yi nga xam ne da nga koy téye ci ci ci ci exécutif bi booba quatre-vingt-dix-huit pour cent ak quatre-vingt-dix-neuf pour cent de la population dañuy gis seen bopp ci pouvoir bi maanaam tànneef warul nekk rek tànn benn nit danga war a tànn ñi nga xam ne ñooy représenté population bi ñu tee dëkk bi te loolu lu tax muy régler problème yi nga doon wax non doucement parce que dama lay expliquer rek c'est-à-dire je comprends gis nga loolu ñu bëri soo leen ko expliquer dañuy wax loolu xamuñu ko mais exactement parce que ñun li ñu tàmmal ak li ñu xamal ni mooy démocratie ak noonu la dëkk di doxee mooy li tubaab bi di def ba nga xam ne ñun sénégalais laa wax dañu gëmloo ni noonu rek lay doxee et gis boobu nag la ñu war a dindi ci bopp intellectuel sénégalais constitutionnaliste sénégalais politicien sénégalais pour ñu xam ni yow yaay xool sa dëkk seet li la jik def sa histoire politique tànn sa dëkk nu ñi nga xam ni mooy gën a indi stabilité te man loolu jàpp naa ni soo ko defoon. Mhm. su ñu demee élection nga def loolu. gis nga nit ñi dañuy nekk si jàmm parce que examen bi nga xam ni 4 yi mën nañ jàll mais man doo nekk sama noonu parce que mun nga jàll ma jàll mais su nekkee yow soo jàllee ñëpp perte da ngay nekk sama noonu. parce que benn place la.